la wax sànq ma ne c'est pas trop tard xam nga maam booy jaaw suma xarit la yoo xam nga ci dara suma xarit la on a presque <laughs> on a même la même année la même date d'anniversaire du dëgg mais pourtant li ma sëqa moom xaritoo bu yàgg d'accorduma ak ni mu doxee te wax naa ko ko itam nee naa ko yaa ngi ci njuumte parce que ñu la gëmloo ni que sa sa heure ñëw na ñu ngi lay nax ñi nga àndaloon démb ak barka démb sàmmal loolu ñu ànd nekk benn te ñu ñu nga nga nga nga nga nga ñoŋal sa diggante ak président Macky Sall parce que sa diggante ak président Macky Sall lu ci ñaaw xeju fa parce que man xam naa sa ni mu meloon te man ma xam Mame Boye kon je ne désespère pas que ñun ak ñu mel ni Mame Boye ñu mën a retrouver wu parce que on a eu on on a beaucoup de de bonnes relations. te jàppuma loolu mu war a mën a yàqu. ab Abdallah Dionne maa ngi gëm ni li mu wax démb ak barki démb ci président Macky Sall am na lu mu ci gëm te bu dee ñu ngi bu dee ba àgg nañ fi fenn fi juboo ak président Macky Sall juboo ak njabootu président Macky Sall du ko yàqal dara. mais Boun Dionne je peux dire la euh, même chose pour Aly Ngouille Ndiaye. donc Aly Ngouille n'a pas je ne euh, désespère pas n'a pas été violemment je ne désespère pas mais Boun a subi des attaques très violentes mais je ne désespère pas. très violentes que ñëpp ñu ànd xam nga attaque moom ci politique. Ah. day am te moom tamit attaqué na man sax dégg naa ko ci man man sax dégg naa ko ci man waaye du loolu parce que loolu c'est c'est c'est c'est infiniment moins important que l'enjeu de la préservation de notre République.